jaaroon astafurla euh, defante gu fi jaaroon te ba tey sax ñun ñu ci ñun sénégalais ak man boo ñu ngi ci guddi gu setagut ndax lii xew si suba allahu axlan yàlla rek a xam mm-hmm. ku jege ci force de l'ordre yi ak askan wi ñaaw na métti na defante lu ñaaw li métti na ba ci tout récemment rek biñ ne Sénégal <laughs> dañuy jël armée bi yóbbu ko Niger dégg la sax yenn sénégalais yi wax ak ñi ma ko sañ a wax nee nañ bu ñu demee yàlla bu ñu delsi te loolu tam nekk na lu ñaaw nit mënoo koo bañ a bañ a bañ nag ba di ko yéene dee wax dëgg fa yàlla am rafetul nit tamit li sama maam dal wax munoo maa bañ ba pare nga yor sa tool ma yor sama tool nga naan na yàlla ji taw sama tool kese bàyyi sa tool te ndox mi moom kenn mënu koo téye loolu aussi rafetul nañ bàyyi xel dolloo xel ci àddina ku jege ñaaw na trop ak ñi ma ko sañee wax li ñuy def ci xale yi métti na xale yi tamit li ñuy jaamaarloo ak ñoom métti na problème bi lan la Didi hmm. ku jegu ñaaw gi defante gi lan la loolu loolooy question bi nag problème bi lan la hmm. waaru naa bam bi parce que nag ki la war a aar wala mhm. sàmm sa kaaraange mhm. bam bi bu ñu demee ba ñuy dugg ci kër yi mhm. wala bu ñu demee bay tiire ay bar rayal ci xale yi ñu xam ne yaa am problème mais man ba tey dama naan ak lu mënti am ñu ñëpp benn lañ bam bi ki sol tenue tenue bi rek moo leen différence mais li ko tax a jóg mooy dimbale ndey mm-hmm. dimbale baay mm-hmm. mun a nekk nijaay mm-hmm. mun a nekk mag mun a nekk rek te man dama naan xeexoog bee xiiroo bee ŋaayoo bi jaru ko bien vrai que jeunes yi ñu ngi seen droit di révolté wu di kaas seeni droit mais mën nañ ko def pacifiquement mais aussi tamit euh, genre policiers yi wala homme de tenue yi nañ dawal yërmande parce que ñoom ñoo ngànnaaw yi ñee ay xeer rek lañ yor baan bi te gëm naa ni sax euh, boy yi mhm. yërmande gi ñu am si si si si homme de homme de tenue homme de tenue est-ce que am na yërmande boobu mhm. ci booy yi parce que mënuma comprendre Bambi bar rayal yi mhm. mën na ñàkk xeex police entre policier ak jeunesse bi loolu yàgg na fi mais bal rayal man loolu laay ñaan ngir yàlla war a sóori na dakk mën ngeen defante def leen lu leen neex waaye rayante gi mën na ñàkk ndax bu ngeen rayal seen frère ngeen di rey seeni euh, cousin ngeen di rey seeni oncle ngeen rey pour man Bambi mën na ñàkk franchement man daal rey gi rek moo ma ci métti dara méttiwu ma ci ci xeex gi rey gi rek mën na ñàkk tey bu ñu demee sax ba jeunesse bi di jàmmoorloog ak police yi kon yaa problème yaa problème parce que man mus naa leen ko wax ci nettali sama maam moo ma ko bu sa nettali ndax fekkeewu ma jamono sama jamonoy maam Léopold Sédar Senghor mm. yàlla xippee àjjana nee nañu mus na romb romb ay paa ay ilimaane jàkka ay naayam ak yooyu ñu toog mu romb daal di yónni euh, protocole wax ne pour defaraat jàkka ja daal. Mhm. Euh, réfectionné waa def yooyu. Mhm. mais bi homme de tenue bi ñëwee dégg naa ci nettali fekk paa yi toog biñ ne ana ilimaan bi kenn nangul ne mooy ilimaan bi. Ah ana naayam bi kenn nangul ne mooy naayam bi parce que la ragal nañ tenue booba temps dañoo ragal tenue. Hmm. man bi may nekk xale fu ma gisaan policier daw. musuma leen a ñeme donte doomi alkaati laa sama papa yàlla dañoo dañoo xam seen i waaye tey nag bu ñu demee bay bay bay affront dégg naa ci nettali bi euh, bi waa ji ne euh, ne ah kon kat protocole bi ànd ak police naan ah kon kat ko wax imam bi nekk fi naim bi nekk fi xaaruñu dellu ndax président kat moo ñu yebaloon pour ni ngeen defal ko défi ñu réfectionné leen seen fii mm. te donte catholique la woon mais toni baa taxoon ñu ragal ku mel ne Assane na bëri daan na ko maa ngi nii maay naayam bi pour mun a ñeme kon démb ragaloon nañ policier ou gendarme ou ku munta doon homme de tenue joxoon nañ leen cër tey bu ñu demee ba xale yi joxatul leen cër nga janoog man ngay sol tenue may xeex ak yow donc yaa problème nañu duggaat kenn ku ci nekk si ruq mën a kan xool lu war a lool asantiit naa jaamaarloo bi tey ku jigu bon gi mm. defante lu ñaawi xale yi di sànni xeer ñii di sànni lacrymogène ñii di ci dee ñii di ci gaañu defante gu ñaaw googu donte kujje am na njëriñ ku kujje bu baax mais wujje lu bon li est jar na ko à la limite aussi am na solo xam nga li nga wax noonu si mag ñi njëkk ña mm-hmm. booba maam Sénégal yi meluñu woon nii ñu mel léegi. Mhm. maam yeewoo guñu woon. Mhm. affaire politique concerné wu leen. Mhm. nu seenum réew di doxe concerné wu leen. leen concerné mais naka la ñuy def. ba mbay mbay mu nangu mm-hmm. ak it naka la ñuy def bu nooree nan la def seeni tool affaire yooyu loolu leen concerné woon mm-hmm. waaye bu dara masaan xew sax ba oto police ñëw si dëkk bi gendarme effectivement lay doon mm-hmm. moo tax li mustoon a am ndax bëri wuñ woon daal bëri wuñ woon du ñu gisante ndax nit ki boo bàyyee koo jonjanteel rek bu yàggee waxtaan mën naa am wala xuloo mën a am werante am yebeel mën am kon maam léegi li ñuy jonjoo moo bari ngànj ga lay na rek ñu génn jaxasoo Sénégal yi ak ñoom mais policiers yi nag man dafa am si ñoo xamante ni tey ji tey ji boo doon dawal si tëli bi sax bañ arrêté la maanaam doo bëgg lu léegi li nga yor si xaalis nga génne ko may leen mhm. ndax respect bu ñu lay jox ndax bu ñu ñëwee dañ lay def ni salaamaaleykum mhm. nga ni maa sëñ bi na nga def nga maa mën a mën naa xool permis nangam nangam mhm. nga xool jox pare mun na jërëjëf waay maam ñoo xam dañuy ñëw taxawal nii fi nga taxaw baax na jox permis nga xamante ni kon loo mer loo loo kontaan fii rek mën nga koo mer fii kon nit ñi ñoo bokkut aw yarin mais foofoot ñi nga xamante ni ñooy formé rek nañ si gën a góor góorgóorlu ku xëy bët bu set buñ tàyyel bët bu set ku sol sa tëni ni maa ngi maa war a monte ji fee yedd ko ne ko ah na nga bàyyi xel de ku ne ngay taseel bul bàyyi bul bul sóoraale mbukk mu mbub mu wayaf mi respect mbub mu wayaf ak mu diis ak jëmm ak lépp si yam koo gis rek respecté ko buñ respecté rek lii di xew ni mën naa bañ a am si penc mi ndax sénégalais boo leen respecté rek mhm. ñu respecté la bañ nag boo nee kii police la rek jox nañ la cër mais nag am na loo xam boo boo ko kon nañ joxante respect ñun ñëpp bu ñu joxante respect rek jàmm mën naa am ci sunum réew mhm. defee ñi nga xam ne ñoo jiite ñoom it nañ jëmbal respect mhm. xool la yoonu maanaa ñu koy santaane si ñu ko mën a sant donc dañ jëmbal respect ci noonu laay duggee ak jàkkaarloog sëñ Modou euh, sëñ Modou tiit naa réew mi yëngu na li fi xewoon yépp ci métti na ci force de l'ordre ak jeunesse bi yàlla na fi yem donc nag ñu ngi ci guddi gu setagul ba tey tiit nañ mais ñaaw na cause bi lan la problème bi lan la lu ñaawle lan la sadik bi ñenn ñi sadik soxor dinaa ci ñëw après ci oustaz nga rey nit tey ko lan la ci chariatul islam yi wax parce que parfois da ngay gis nit ki nii nga rey ko sans gêne après dara du la ci fekk mhm. xale bi tamit taxaw jaay bakkanam risqué nëbboo sa kanam defoo dara nga taxaw ne maa ngi nii di defante ak borom tamit problème bi lan la sëñ Maodo waaw problème la boo xam ne day mook dund doomu aadama ñoo yem. Mhm. ñoo ànd. Mhm. ndax euh, rapportu civil yi ak euh, homme de tenue yi dafa war a nekk rapport maanaam yu sain. Mhm. ndaxte dañu war a xam ne force de l'ordre yi. askan bi ñoo leen ñoo ñoo tax ñu ne mais nag bu ñu nekkee ci état. dafa am loo xam ne aussi dafay am maintien de l'ordre. ndax état mu ñun ñëpp moom lañ dëkkee su ma nee état du ma wax gouvernement maanaam état mooy ñun ñëpp ñu dëkk. ci ci réew mi ndax bu ñu fi dëkkuloon du am état. kon dafay am ñoo xam ne ku nekk pàcc bi ngay téye. léegi nag euh, rapport yu tar yi nii diggante citoyen yi ak. Euh, force la commencé wul tey. du jeex tey. day continuer di wéy. ndax loolu mooy àdduna. ndax li dalee bu ñu lay wax grève 68. di la wax 88. ba ñu lay wax 94 nga xam ne dañoo rey 6 policiers. ba ñu arrêté ñoom Ablaye Wade ak Landing Savané ñoom ñu jàppoon leen tëj leen ci kaso bi. xam loolu am na fi. ñi ngi sant yàlla loolu amagul fii nii. ci jamonoy lay Wade rey nañ fi Fodé Ndiaye fii euh, Colobane. ci jamonoy Macky Sall. xëj na dégg nga fi gendarme bu ñu rey Tamba ci affaire braquage. manifestation yi des fois di nga am ay blessé mais dégguñ ci kuñ ci rey. maanaam àdduna moo bindoon noonu léegi nag. rey bi nga xam ne ñu ngi koy rey xale yi ci manifestation yi. Mhm. fi problème bi nekk mooy dafa war am enquête. Mhm. ndax ki def maintien de l'ordre mhm. sant ñu ko mu rey. waaw maanaam foofu rek la problème bi nekk. dañoo def enquête ba xam ne diw la. ndax aussi euh, policier bu nekk yaa ngi wax am na ko ne dafa tenue bi moo leen moo leen séparé. mais tenue bi aussi may loolu lépp li nga droit bépp nga def. dafa am fu ñu yemale. léegi nag nguur gi waroon na def enquête pour leeral loolu. dafay baax Sénégal bu injustice amee. Mhm. ñu xam fan la féete. Mhm. xale yi ñu ngi kaas loo xam ne constitution moo leen ko may ndax ñun ñoo ko nangu suñu constitution. Mhm. mooy droit à la manifestation. waaye policier bi ak gendarme bi dañu am euh, fonction pour maintenir ordre. am na nag juste équilibre juste équilibre ñi ko yore mooy préfet yi. te préfet yi politiciens yi ñoo leen di commander. foofu la problème bi nekk. li ñu war a def daal ba nga xam ne war nañ ko bañ mooy di utiliser force de l'ordre yi pour ay règlement politique mhm. te dañu seetlu fii ci nguuru Macky Sall mhm. daf ci bari mhm. Abdoulaye Wade daan nañ ko tëj génne ko nangam nangam nangam nangam mais excès yi ñu gis ci nguuru Macky Sall dafa bari ba nga xam ne policiers yi sax man jàpp naa ne da leen mujj da leen di soof ci benn instant parce que da ngay romb nii tey nga xool depuis bi ñuy wax affaire Sonko. Mhm. chaque jour ngay romb ay policiers ay gendarme mhm. ñuy fanaan ci mbedd bi. ngay romb péage bi booy dugg ñu ngi érigé foofu ay tente booy dugg sorti neuf. Mhm. di fa fanaan da ngay defaa seen tenue dafay tilim. te pourtant Sénégal réewu jàmm la. li problème bi mooy bu nekkee ne Ousmane Sonko mooy problème bi. yaa yi réew ay intérêt li ko stabiliser moo moo doole li ko déstabiliser dañ mm-hmm. ko bàyyi mm-hmm. bu ñu ko bàyyi woon police bi dellu ci gendarme bi dellu ci caserne yi mm-hmm. comme ça ñun contrôler seen contrôle routine comme transport di def di wër euh, way ñaawte mais fi doon ni gendarme yi police talatuñu wër wër way ñaawtee fi ndax politique loolu nag moo ci dul yoon politique bi nañ ko génnee ci espace bi te xale yi xam ne wax dëgg fa yàlla policiers yi ak gendarme yi ñun la wante nag aussi bu ñu respecté ku nekk li mu li mu am moom. muy droit de manifester. maanaam bu ñu ko respecté encadré ko. dafa war a am. te loolu préfet moo ko war a encadré. ko bindee daf ko war a nangu ndax loolu Ablaye Wade moo ñu dugal ci régime déclaration maanaam dematoo pour. tàggoo da ngay yëgle waaye mais boo xoolee nag lu fi am ñu interdit ko nga war a dem ba dugg say siège ñu ñëw barricade siège boo jël ñaari oto gendarme mu teg fa waratoo fa dugg ah loolu loolu loolu loolu abri la loolu lañ ko te loolu mooy andi divergence yi am nii. Mhm. ñuy xoolante comme ay ennemis te pourtant ay frères lañu. loolu moom rafetul ñu koy ñaawlu au passage def nañ ko siège Malick Gakou barki démb rek bi waa opposition yi bëggee dem si siège pur bi dañoo taxaw ne duñu fi def seen point de presse mhm. man je ne sais même pas on est dans quel pays mhm. tey bu ñu demee mënatuñoo wax suñu droit amatuñ droit ci réew mi autant pour moi li ma leen wax laa fois passée. indépendance am nañ ko mais amuñ liberté te ñàkk liberté nag mooy indi li xew ci sous raison yi yal nañu ci yàlla musal fipp baaxul parce que da ngay xool ñi dëkk yi fipp nit ñi dañuy pare di leen tàccu di kontaan ci coup d'état bi nii li am na te bu njëkk ba dañ ko doon bañ di ko ragal donc y'a problème nañ duggaat si ruq mën a kan certes nag euh, gémi yi ou policiers yi alkaati yi continuité la fii ngeen nekk yéen état yi liggéey waaye ñun askan bi tamit ño leen fay ñun ñoo leen tax a nekk suñu protection ngeen war a nekk aar ñu iir ñu euh, donc ba xamante ne tey bu ma toogee ci mbedd sañata wuy téléphone minuit ou une heure du matin te kenn du ma métti wala kenn nangu sama téléphone kon yéen a yor suñu kaaraange ginnaaw yàlla ak yonent bi mm-hmm. oustaz réew mi yëngu na ginnaaw boo joxee sa xalaat ba pare mm-hmm. ma lay laaj lan la charatu islamiya wax ci nga tiim nit ma tiim moodu nga baal ma rey ko ci tayeef sama tayeefu bakkan mm-hmm. lan la ci charatu islamiya wax parce que gis nañ ko fi aussi borom bu dee safara la jëm man qatala nafsan mutaamidan fa jazaau jahannama képp ku rey bakkante yaa ko tey yaa tiim jàkkaarloog nit ki rey ko suñu borom nee na directement safara jahannama nga jëm xam nga loolu baa mi lu leer nañ la mhm. mais force restera à la loi mhm. Lamartine mhm. dafa vérifier alquranul karim ndax yàlla moo ni inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizun da ko vérifier moodu di ko xool di ko xool ba ci yàgg muy yuuxu fekk moo yaayam ñoo toog di waxtaan mu ne ko yaay yaay ji ni ko naaw mu ne ko dëgg-dëgg alxuraan amul morom te chrétien la mu ni ko alxuraan amul morom yaay ñi ni ko yaa ngi saalit yaayam ni ko yaa ngi saalit mu ni ko yaay aaya bu ci nekk constitution la aaya bu ne constitution la li ñu war a def mooy sant police gërëm leen ñaanal leen yàlla yàlla jàppale leen xam nga lu tax bambi ni ñuy aaree réew mi am na solo trop ndax bu loolu ak ñoom du ñu am sécurité kon loolu dañ ci sant police gendarmerie ak ñoom ñëpp rek mboolem kuy solté ni mais boo ñëwee ci l'islam nag l'islam xàmmeetul dara gis nga Moodu policier bi ci kaw àdduna lay nekk policier yow nga doon civil man ma doon civil di di doon civil waaye bu ñu diggee biir bàmmeel ñoom ay civil la ñu doon comme ñun yàlla am na ay policiers yàlla am na ay gendarme yàlla am na am na ay militaire ñu tuddee leen junudullaahi laaj moom lim la dénkoon noo ko yore woon mais déggoo li ma la wax policiers yi ngay njëkk a dajal gendarme yi ngay njëkk a dajal ki ci njëkk munkir la tudd ak nakir dégg nga seen ndur xam nga leen biir bàmmeel la salaamaaleykum yàlla yebal na benn policier mu taxaw kon policiers yi war na ñoo bàyyi xel ci ñooñu après kon bu dee bu dee jullit nga croyant nga am nga loo gëm war nga am loo bàyyi xel li baam bi laaj li nga laaj yonent bi dafa wax ni idal taqayaa muslimayni bi say sayfayn nee na faqatala sayyiduna muhammad nee na fal qaatilu wal maqtulu fi naar moo tax police war a def très attention ci civil bi mhm. civil bi tam war a def très attention ci moom mhm. yonent bi nee na bu ñu jàkkaarloo kii yor paaka mhm. kii yor pistolet ñu xeex ba rayante sayyiduna muhammad nee na policier bi rey civil bi ak civil bi ñu rey ñoom ñaar ñëppay ànd safara lañu jëm ah bon attention parce que intérêt civil bi mooy na rey policier bi waaw waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw intérêt la kii tam intérêt mooy na ko rey bàyyi ñaari jullit yu dajaloo mhm. ku ne am yéene rey sa morom ki rey safara la jëm ki ñu rey safara la jëm kon moo yem àtte ak euh, ñu bugg laa rey nga rey bokkul kii di la rey fekk la ci say droit bu fekkente ni police loolu la ñuy def ki ñu rey moom mu jël décision da nga maa fas yéene rey moom mu fayu su boobaan dara du ko ca fekk du ci am bàkkaar attention loolu tam war nañ koo xam mais dafa am beneen jàngale. kon dogguma la oustaz yàlla ba kon Barthélémy li mu defoon tout récemment dara du ko eh, boobu. nee na ko moom dara du ko fekk moom nee na dafa ñëw dañoo ñëw pour rey ko mu défendre boppam. ki lay bëgg rey. est ce que loolu kon moom dara fekk. l'islam dafa doy waar. l'islam santul kenn mu rey. rey moom mën naa ñàkk. attention l'islam santul kenn mu rey. bi mu an nafsu bi nafsu wala aynu bil ayn l'islam dafa ni la nit ki soo reyee rey ko. bu bëttee sa bët bëttal bëtam. bu dammee sa bëñ dammal bëñam. l'islam laa lay wax de. mais ko lu ma la dañ koy rey. du moom nga wax sànq. kii loo àtte boobu bu ñu ko àtte woon de coow lu jeex. Mm-hmm. gis nga rayaatekat yi agresseurs yi ñoom la. Mm-hmm. mais bu ñu àtte woon àtte l'islam coow lu jeex. Mm-hmm. calculer diw rey na diw. fu mu ko reyee ñu ne xanaa ca parcelle. ñu ne jàpp nañ ko. Walfadjri TFM. Sen TV 2S ñu ni suba ci une lañ koy rey. ki koy rey. oustaz loolu léegi amatul ci àdduna de. ki koy rey sax defatuñ ko. ki koy rey. charia may ñu nëbb kanamam kenn bañ koo xàmmee. waaw loolu la ñu wax. yaa may dégg. ñëpp taxaw mu tiim ko ñu rey ko. gis nga moom moomu di ko rey day am tuyaaba yu kenn xamul fu mu jëm. Ah, nit ñuy jooy. ay mbokk waa ji parce que ba bàyyil xel ki mu rey. Ah, moom mi la war a rey te lislaam sant la ko man mii di wax di wax ak yow. man mii di wax ak yow su bis boobaa lislaam solal ma ustaas ni ma carrément jox nañ la droit diw yaa ko war a rey. mais lislaam du la war a rey ak dina am condition yu mu lay xoolee. Mhm. dina la suivre dina la toppatoo l'islam dafa am xaadi dafa am juge dafa am attekat su boobaa bu njëree man la bàyyi ma esan noo may xamee mhm. rey gi ma lay rey dama ciy jaamu yàlla mhm. mais loolu amul amatul ko doon def ko saa ci ëpp màkk a validé ci assemblée ku rey ñu rey la. loolu peine de mort lu bëri l'islam bu doon attention xam nga amatul. l'islam bu doon la mu wax nañu ko def rek jàmm am léegi nag mu des beneen cas yonent bi nee na loolu policier ku dul policier ñoo ci bokk àtte <laughs> dëgg la Seydina Muhammad nee na wa rajulun qawmun maahum siyaatun ka aznaabil baqari yatribuna naas wallaay wax Seydina Muhammad a ko wax de. alayhi salaam yaa ma fi teg nag de bu ma bu ma feex loo xam ne damay wax ni di dem rek te indiwuma aaya wala xam ne dafa ni wa rajulun góor goo xam ne. Mhm. foo ko fekk dafay yor yet wala fiin. Mhm. jàpp nit di ko dóor mm-hmm. ngir doole di wane di gëree laa mm-hmm. di wane ne dafa am ñu ma ko sant force restera à la loi wallaahi yàllaa ko dooleel nag mais mais oustaz ñu ñoo nangoo oh. nekk ci régime boobu noonu. no atta moom laa non nangu ci régime boo xam ne force dafay nekk à la loi. effectivement léegi bi kan moo koy jalgati. foofu la question bi kii koy jalgati kooku gis nga. policier bi nga xam ne daf la jàpp dumala dumala yu méttee mm-hmm. métti. ngir da ngaa jalgati yoon réew mi kooku tus du ko topp. ok dara du ko topp. mi ngi ci yoon parce que yaa deful yoon mu dumal. ok oustaz charia tamit dafa mais ki nga xam ni. xam nga xam nga tamit doguma la yàlla bu la def charia dafa ne. Mm-hmm. Euh, buñ la bu yow boo ma tooñee. Mm-hmm. ma su ma la mënta jéggal mm-hmm. ma fayu lu em li ma def tolloog lu tollook la ma def mooy lu mm-hmm. em lu lu ma def mm-hmm. léegi dikku yow jam nga ma man jé jéggalu nga ma gaane nga ma baal ma ci jam bi donte deewu ma parce que maa ngi dundu moo tax jam nga ma munuma la jéggal jam bi Mm-hmm. léegi te charia nee na boo munta jéggale fayul lu em lañ la def mm-hmm. man may fayu ne damay fayu jam gi parce que baalu mm-hmm. ma la maara dee taali maa subaana nga jéggal ma ma jam la nga jaare fa la chariatul islam wax ci loolu parce que moom moo ne boo munta baale fayul lu am lañ la def jam nga ma man jam bi reyu ma ma jam la nga dee waaw xam nga charia charia dara carrément ki la gaañ li tolloog li mu la gaañ loolu nga koy def boo ko defee li tolloog li mu la gaañ ngay dund rek yow doo dee du dee attention mais bu dee rey am na ca seeree nee na li war dañ ko war a mm-hmm. yaa ngi dégg baax a baax mm-hmm. kon nag ñooñee nga xam ne dañuy dóore ngir utiliser doole laay wax mm-hmm. yeneen ci bi nee na laa yadxul na janna ndax aaya bi xadis la boo xam ni dafa ëmm jigéen ñi nga xam ni dañoo ànd jigéen ñi nga xam ne dañoo rafle dañoo dañoo bokk ci même xadis bi ak bii may wax ñoom bu ñu dugg aljana du ñu am xetu aljana dinañu sori aljana lu toll ne ay kilomètres kilomètres kilomètres kon daal doole kenn du ko utiliser yonent bi ne soo ëppee doole jéggaleel mhm. te asan fii xel mi ngi fi mhm. fii xel mi ngi fi mhm. moo du kenn war a warut a utiliser force. amul njëriñ. donc fii ngi fi kenn mënut a utiliser. fii ngi fi fii kenn mun a utiliser force. force te muy dégg vérité absolue ndax sama maam daan na wax ne ku mar naan taxanaan petit euh, bu robinet tijjee da ngay daal di ruus donc xale yi nañ defaraat seen toogaay waaye fos de lor yi mm-hmm. itam nañ yërëm xale yi mm-hmm. donte doole yàlla rek a ko yor waaye kenn du jël sa doole di ko mm-hmm. jëfandikoo ci kaw ndaw ñi yërëm leen xale yi comprendre leen xale yi certes parfois ngeen jot ay ordre defee leen nii waxee leen nii mais rek waaye xam leen ne doomi aadama ngeen te borom suna taala su ko neexoon tey ñun ñu fi ñu toog yëpp kenn du jug wala li ñu wax sax du mm-hmm. egg mm-hmm. mu def fi tremblement de terre mar day taali ñun ñëpp ñu dee même coup même minute yàlla nañ ci yàlla musal donc kon yàlla moo yor bakkan certes moo yor doomi aadama nañu defaraat suñu toogaay xale yéen itam respecté leen borom toni ndax borom toni baram yat du xeex ak borom fetal ndax olof moo ko wax tamit dëgg ndax ki yor pistolet nga yor itam bu dee la amee yow yaay gaañu ci yow lay métti mhm. donc yéen aussi jiital leen seen xel bañ a jiital seen xol ak li leen métti certes métti ti bëri na yal na yàlla teggi tiis yëpp teggi naqar yëpp def ci réew mi jàmm ndax fii jàmm rek a fi xaj